awuzu billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaara ci guddi gu tedd gi ñu génn muy guddig sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen ci ndokkeel itam waaye di ñëw rek di waxaat suñu yëg-yëg ci réew mi ci ni muy doxe ak ñàkk teggin gi fi am ak ñàkk xorma ji am ci réew mi jëmale ko ci suñu mag yu baax yi nga xamante nii ñoo nekk ci réew mi ma leen di xamal ni mbokk yi billaahi ki tax nga tal ko moom talu ko dëgg la kenn ku nekk am nga wasila kenn ku nekk am na koo gëm waaye bu mu tax ki nga gëmul bu génnee wax lu wuuteeg la nga bëgg mu wax ko nga ni enveloppe ba tax wala ziar bu duun wala nangam ak nangam damay ñëwaat rek di rappeler loo xamante si ne mosoon naa ko fee wax jëmale ko ci xalifa bi sa nga xalifa bi bu daan jógee senegal di ñëw fii ci Italie fii wala muy ñëw Europe sax laay wax Europe muy France ak fii fu mu ci doon fu ne poosam la daan indaale fii ci réew mi ñun ñii féete bergamo ci zawiye bi fii li fi sëriñ bi def ci jàkka ji taxaw tey ba ñépp di wax naan zawiye sidna cheikh bi nekk bergamo mu fi def ci alal ku ko doon xayma li ko manqué cent mille euro bariwul segam mu ëpp ko jamono bi ñu fi tollee ci tolof tolof nekk ci jaaxle tubaab bi ñu quinze tubaab bi wax ni ñu ni quinze mois yii di ñëw bu ngeen ñu matalul fay ñu lu mat cent soixante dix mille euros xaw deux cent mille euros lu ngeen ci defoon dinañ ko ñàkk koroog bi ñu demee ba desee soixante dix mille euros wallahi li may wax nii képp ku dëkk ci Bergamo gi wala nga nekk itali xam nga li may wax ci la benn nit woo benn nitam bu jëm fees di ziyaara ji Seydina Cheikh mu woo ko ni ko ñun dey jaaxle nañu ndax toll nañ foo xamante si nii soxla ñoon ndimbal te ndimbala Seydina Cheikh rek lañu yaakaar ba mu woowee shérif bi fa nekkoon mu shérif Zubair wax ko ko dañu ko gis naa biig Seydina Cheikh nee na xalifaam dina fi ñëw dina ko mottali ci booba xalifa yëpp a ngi fi booba ñépp a ngi fi booba nga tuddee gu ñu Pape Serigne xalifa général de Tidianes korog bi mu fiy ñëw bi ñu wàccee aéroport la ni ma am naa yóbbante bu jëm ci yéen billaahi bi mu dikkee cinquante mille euros la fi indi ni ma maa ko def ci zawiya bi kon kooku xaarul enveloppe buy ñëw ci moom wala ziar bu duun buy tax muy wax wala muy jëf nit ñi nañ leen xàmmee ci jéem a yaru am xorma am teggin ci kilifa yi ñàkk teggin gi bare na ñàkk ma gi bare na te dara waralu ko lu dul am ay vues wala ay gis le ma ci seeni site ndax alal juñ cay jële loolu ñaw na torop fi suñu réew mi toll Pape Serigne Mbaye enveloppe taxu ko wax ñi naan ziar bu duun wala enveloppe bu duun ay xuma Mansour Diop la tudd xuma kan la tudd ay siré si ñi naan dafa xaabaabal mais ay doomeraam yu tekkiwul dara dara dara lu dul seen làmmañ lañu yor yore seen làmmañ wu rëy lu ne ñu di ko wax bàyyi nañ lan daan wax nag léegi ñu ngi ci kilifa yi mais bu kilifa gi taxawee ni kii mooy futur président mais képp koo xamante si nii déposé nga candidature ni président laa bëgg a doon mais futur président nga kon su amadu Ba taxawee ci kanamam mu ne ko kon yow yaay futur président Sénégal mais loolu waxin la déggin lay laaj parce que loolu la Amadou Ba bëgg loolu la maam booy jaaw bëgg loolu Ousmane ko bëgg loolu la keneen ak keneen ak keneen bëgg kon ñoom ñëpp ay futur président lañu ka ca yàlla di tànn nag yàllaa ko xam te sëriñ bee la gën a xam téeméeri junni yoon li yàlla moom ak lii mu moom moo la gën a xam tawxiid téeméeri junni yoon xam na fu mu yemale ay kàddoom ci digganteem ak boroomam ak digganteem ak nit ñi kon wax lu neex Macky Sall taxu koo wax wala lu neex Amadou Ba sëriñ bi ba muy am dépense boobu Macky Sall juddoogul ba muy am li muy am di dundal boppam di dundal waa këram di taxaw li muy taxaw booba kenn ci yéen ñi di wax juddoogul kuy jóge Europe di ñëw fii buy dem France noonu lay def li may wax waa France ba nañ koo seede maa ngi ciy jël témoin président Alioune Guèye ñi nekk fii ci Ita waxuma sax jàkka ji waaye bu ñu musaan a ànd dafa naan ma Moussa waa li ma la dénk bu mu la sori ndax fu ñu jëm mën nañ faa fekk loo xamante si ni lu ñu war a faj la ak ku mën a doon boo dikkee tiim ko waxtaan ak moom dis ko su soxla mu lamb dama ko daa xam naa ko papa nii ngay def xaalis bi nii li dee na war mu ne wallaahi wal kitaab mu ne ma Moussa alal ji su ma ko deful nii nii la may def kon kooku enveloppe taxu koo wax lan lay daboot ci àdduna moom lan lan la fi taxawalal boppam loo xamante ni ci boppam la ko def lu dul jumaay Seydi Hadji Malick ji nga xamante ni nii moom la fi taxawal ni lii lépp te kat ci jumaa ji ndax lépp loo xamante si Seydi Hadji Malick bàyyi na ko fi rek projet la pour moom mu yeggale ko ba mu mel na mu waroon mel kooku enveloppe bu nit di indi wala leneen war na koo mën a tax wax ba tax muy wax loo xamante si ni bokkul ak li mu war a wax dañ leen arrêté ci jéem a yaru ci jéem a nit ci jéem a yiw ci jéem a sérieux ci xam li ñu war a wax ak li ñu warul a wax ca moytu mbokk yi nañ leen moytu mbokk yi nañ leen moytu mus naa fee wax ni fii atam ni leen gis ngeen njabootu Seydi Hadj Malick gii wallahi seen der seen der dañ koo tooke ku ci musa rek rek fër nga te na leen yoon yàgg nag ñu dem ba ci kanam ñu xool ñun de fas na noo yéene xormaal ñëpp ak kum mën a doon ak loo mën a wax ak loo mën a jëf fas nañ laa yéene xormaal jox la teggin yu mat sëkk ak sa wàccuwaay ak la nga am la ca des nag sa mbirum bopp la waaye kii a neex su waxee li ma arrangé ma ni moo fi gën moo fi baax moo fi gën a yiw moom rek moo fi sëriñ su waxul li ma arrangé nga ni du kenn du dara loolu ñaaw na trop te suñu ko moytuwul billaahi fa ñu jëm xamuñu ko ñun nag duñu deñ di dégager suñu responsabilité ci yu mel nii ndax xam nañ lay ñëwi ëllëg su agsee suñu kaw billaahi du baax ca mbokk yi li ta li nga tal li tax nga tal ko ka tax nga tal ko war nga ko fonk war nga ko suturaal war nga ko xormaal yore sa làmmiñ wu rëy nag di wax ñu dëkkale ay micro nga yore sa làmmiñ di wax ko ko ci moytuwul billaahi fa nga jëm du baax foofu la ñu yemale kàddu yi rek salaamaaleykum wa rahmatullah spécial rentrée des classes ah ubbite école bi ñëw na seen société SIPEX di société industrielle papeterie express bu Sénégal am équipe bu dynamique te qualifiée à 100 pour ay jeunes sénégalais jënd seen i machine industrielle de la haute technologie di leen proposer la superbe gamme de cahiers Espoir en couverture plastique et en couverture cartonnée la SIPEX lance le cahier Teranga en couverture plastique et en couverture cartonnée avec une promotion exceptionnelle la CIPEX lance cette année Kaye Teranga ak promotion bu mucc ayib le paquet de 200 pages avec les 5 pièces à 1400 francs lii mësta am Sénégal le paquet de 100 pages avec 10 pièces à 1400 francs mësta am Sénégal stock limité yeneen i promotion disponible nañu en couverture plastique 60 grammes et 80 grammes suñuy boutique agréée librairie papeterie Mohamed Bourguiba LPM Sandaga LPM Koloba Colobane LPM Kaolack LPM Tilène LPM Kër Massar Hello Partenaire GBIS Mbour GBIS Kaolack LPM Boune te centre commercial Al Maktoum la CIPEX et la LPM toujours au service du social les commerçants et les parents d'élèves nous vous proposons des produits de qualité supérieure à petit prix avec le cahier Teranga la qualité saute aux yeux des prix exceptionnels en carton sont prévus pour vous les commerçants et grossistes pour tout renseignement rapidement, contactez-nous au 77 633 21 24 ou le 77 571 07 02 dañuy jëflante ak mairie yi dañuy jëflante ak municipalité yi ak ministères yi ak ñi nga xam ne ñooy bonne volonte yi bëgg a jàpp ci jàng bu xale yi ngeen ñëw ñu jox leen ay cahier ci ay njëkk yu yomb ngeen dimbali xale yi ndax éducation mooy defar réew